delloo ziar bu baax a baax a baax. ñu fekk la ci sa feef. muur am lamb ku ne xam ne ko wax lamb wax jeunesse ak action yi ngay mëne à travers la jeunesse mbuur waa tey ñëw Sidi Diakhaté tey biir mbuur waaw Sidi Diakhaté euh, euh, def naa dañoo yàgg ñu ngi waaj yàgg ñu nag moom nag muy muy muy def lu am solo si dëkk bi ñun fii dañoo bëri ay écurie bëri ay jeunes bëri ay mbër yoo xam ne dañoo bëgg am tàkkusaan euh, yomb nag loolu moo tax bu amee promoteur boo xam ne mu ngi bàyyi xel mbuur di ñëw mbuur di fa tëgg ay takkusaan yu am solo donc kooku dañ koy gërëm bu baax di ko sant bu baax parce que permettre na tey jii takkusaan ay jeunes yu bëree bëree bëri ñu am si ay ay combat wane si seen bopp loolu dina leen permettre ñu am yeneen i yeneen i combat yu gën a am solo ba pare takkusaanu tay bi nag Sidi Diakhaté jël njabootu Macky Sall gi yëpp mu boole leen benn benn benn takkusaan loolu tamit lu am solo parce que ñun ku ne xam-xam ne ñun ak jeunesse bi dañoo yag dañoo. man loolu moo ma jaaxal complicité bi nga am ak surtout la jeunesse. wa parce que tamit xam nga déjà on est je ay jeunes lañ benen bi mooy euh, président Macky Sall mo ñu joxoñ loolu nak mo né développement kenn mënu ko def te jitalo jeunes yi moo mu indi li ñuy wax PSE jeunesse 2035 bu bok ci manam euh, ponk yi nga xamné ne si deuxième mandat bii di liggéeyal ëllëg bi programme bi maanaam ci ponk yi gën a am solo jeunesse bi da see bokk. kon jeunesse boobu nag képp koo xam ne nii yaa ngi wuyoo président Macky Sall te gëm ko waxuma nag ñi nga xam ne dañ koy wuyoo si tur nii rek ak si tappale mais ñi nga xam ne dañoo gëm président Macky Sall seen premier obligation mooy ñu jege jeunes yi xam seen i préoccupation ñu taxaw si accompagner leen ba li président Macky Sall soxla si ñoom. mooy participation bi ñu war a participer ci plan Sénégal émergent bi ñu mën ko def ci nu mu gën a rafetee.